Mesdames et messieurs, bienvenue en Côte d'Ivoire. Nous venons d'atterrir à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il est 13h passé de 55 minutes en heure locale et la température à l'extérieur est de 29 degrés Celsius. Mais gardez votre ceinture attachée jusqu'à l'extinction du signal lumineux. Pour votre sécurité, nous vous recommandons de prendre garde aux chutes éventuelles d'objets à l'ouverture des coffres à bagages et de vous assurer de Nous kàddu yu hôtesse de l'air bi moom mooy firndeel ne agsi nañ fii ci Côte d'Ivoire délégation bi nga xam ne moom ngeen jàkkaar lool ñuy wàcc ci avion bi ñoo bàyyeekoo ci réewum Sénégal ngir ñëw teewe màggalu Grand Bassam bi ak bës bi nga xam ne moom lañ jagleel Maam Jaara ñu koy amalee ci Yamoussoukro mu nekk ay délégation yu takk lool yoo xam ne biñ agsee ci aéroport bi ñoom ñëpp ànd nañ def seeni enregistrement ak mbooleem formalité yi nga xam ne wax nañ koo def laata ñuy bàyyeekoo fii nga xam ne moo di ci aéroport bi ngir mën a dugg ci biir dëkk bi. màggalu Grand Bassam nag nekk na màggal goo xam ne Serigne Mourtada moom Serigne Abdoul Ahad Mbacké moo koy taxawal ànd kook mboolem taalibe yi nga xam ne dañoo nekk ci réewum Côte d'Ivoire. waaye it ci Sénégal délégation yi nag takk lool ñoom ñëpp ñëw daal di daje fi nga xam ne moo di ci aéroport bi délégation yi nag takk woon nañ lool waaye bii ngeen jàkkaar lool moom mooy bu soxna Baali Muntaxa moom nag mu ñëw ngir teewe màggal gi ndax màggal gu ni mel sax moom at mu jot daka daan teewee waaye ren jii nag ñu dara jaaleel ko màggal gi maanaam mooy marraine bi loole moom moo tax délégation bi mu fi indi takku lool mu ànd ak ñoom waaye it ànd ak mboolem taalibe yi nga xamante ni dañoo nekk fii ci Côte d'Ivoire ak xaritam yeeg wëlëreem yi ñoom ñëpp ngir ñu ñëw daal di teewee bés bu mag bi nga xam ne moom lañ ko dara jaalee délégation bi nga xam ne nag moom la soxna Baali mun Muntaxa indi am na kilifa yu bëree bëri yoo xamante ni ànd nañ ci ak moom. màggalu Grand Bassam édition 2019 bi ñu ngi ko ne parrainé Serigne bu Mbacké moom Serigne Touba waaye it sëriñ Bassirou Mbacké moom Serigne Abdoul marraine bi di soxna Baali Muntaxa loole moom moo waral délégation yi takk lool muy mbooloom takk mii nga xam ne moom ngeen jàkkaar lool ci aéroport bi ñoom ñëpp ñu bàyyee ko ci réewum Sénégal ñëw fii ci Côte d'Ivoire ngir teewe màggalu Grand Bassam ak journée bi nga xam ne moom la ñuy amal ca yam Yamoussoukro ñu jagleel ko soxna Mariama Bousso Diaratullah ginnaaw bi ñu defee mboolem enregistrement yi ak seeni formalité ci lañ génn ci aéroport bi Serigne Mourtada moom Serigne Abdou Lahad Mbacké daal di ñëw teertu délégation bi nga xam ne ñoo bàyyi ko Sénégal teertu googu mu ànd ceeg taalibe yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Côte d'Ivoire ñoom ñëpp ñu ànd ñëw daal di dalal délégation yi ngir ñu fas yéene jubali ci bërëb yi nga xamante ni mooy seen dalluwaay yi ak kër sëriñ Touba gi. moom Serigne Mourtada moom Serigne Abdou ku ne xam na ak wëllëreem ak soxna Baali Mountakha moo tax it soxna si fonk lool màggal gi waaye it bés bi nga xam ne moom lañ jagleel maamam ja di soxna bu Bousso Jaaratullah ndax ku na xam na soxna Baali Muntaxa ni mel ak soxna jaara ak taxawaay bi nga xam ne ma ngi koy amal ca Poroxaan moom moo tax lépp loo xam ne tudd nañ ci soxna jaara Bousso da ciy taxaw taxawaay bu mat sëkk rawatina fii ci Côte d'Ivoire mu ànd kook mbooleem xarit yeeg wëlëre yi ak mbooleem taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi rawatina délégation bi nga xam ne moom la àndal daal di bàyyeekoo ci réewum Sénégal ngir ñëw fii nii teewe màggal gu ni mel noone nag la mbooloo mi àndandoo daal dem ci bërëb yi nga xam ne moom lañ leen waajal ngir ñu mën fay dal bokk na ci kër Serigne Touba gi ngir ñu mën a waajal journée yi nga xamante ni ñoom lañ amal fii ci Côte d'Ivoire bokk na ci waxtaan yu am solo yi muy bés bi nga xam ne moom lañ jagleel soxna Mariam Bousso Jaaratullaa ak bésub màggalu Grand bi Grand Bassam nag dëkk la boo xam ne mi ngi nekkee ci Côte d'Ivoire Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jaaroon fii ci jamono bi nga xamante nii mi ngi dem ci Gabon ci exil boobu nga xamante nii def na fa juróom-ñaari at yu teg ay weer mbokk yi bàyyi xel seen chaîne Académie Minane TV ñu bàyyi leen ngeen dundu mbooleem temps fort arrivé délégation yi nga xam ne ñoo bàyyi ko Sénégal ñëw fii ci Côte d'Ivoire ngir teewee màggalu Grand Bassam édition 2019 bi tubaab yi ñoom dañ la daan menace bamba buur yi fit ne woon daan la offense sëñ bamba yorewuloo woon benn défense budul yoneen xaadim rasool yaa basam benn distance tubaab ya def nañ fa séquence ñoom ñëpp toog di assistance ngir bëgg lor xaadim rasool cay sëriñ Tuubaa grand basam benn distance tubaab ya def nañ far séquence ñoom ñëpp toog di assistance ngir bëgg lor xaadim rasool lii rekk doy na Bamba seen yéene mooy xañ la cadence Sëñ Bamba ku ñu fa relance ca Gabon nga xam ne doo Xaadim Rasuul yoneen bi mooy sa référence Bamba amoo defet yow bay laaj revanche santati nañ la sa souciance naan jërëjëf xaadim rasool seex bamba yaay suñ confidence bamba muritoo raw na alliance ku woote gis présence ummanti doon xaadim rasool